jaajëf sama gars yi salaam jàmm ku mbedd nigas baa ngi nuyoo léemaa ko mëj wala waa dégg ko fay monsieur booy ji ji jiri der ékey booy grand maa ngi leen di bégg bu paax a baax di leen ziar vous êtes dans votre émission préférée Galsen Sama Game tey ñoo ngi fii Reptile Music fekk fii Dizzy Kha euh, Dizzy Kha ñu fas yéene waxtaan ak moom ci projet bu mu jéggee ne tuddee ko uti ko dinañ si ñëw dinañ si ñëw avant euh, projet bi Dizzy xaa si lu mu nekkoon dinañ waxtaan ci nu mu duggee reptile dinañ waxtaan tamit ci projet bi loolu yëpp ci kanam tuuti dina leer mais avant loolu dama koy jox mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi di si xaar. salaam salaam maa ngi nuyu gars yi ñu seetaan yëpp di leen nuyu yow Jili xam nga di leen remercier ci invitation bi di si xaar reptile music yegg si leen si jàmm. jaajëf euh, Dizzy ñu ngi lay béggee bu baax a baax euh, tey euh, avant tout damay laajte Dizzy xaa sa dugg reptile. naka la demee noo def ba intégré biir Reptile. Euh, waaw man mun naa ni dama bokk ci membre fondateur label bi parce que boo ko gars di teg 2013 la ma lañ ma présenté projet bi boo fekk na mu nekk studio ba pare. après gars yi ci la ñu amee Idi Bison affaire noonu Tarmaïk ci lañu ñu amee euh, projet wu def ko label. donc comme moment boobu fekkoon na ma sama carrière solo ma commencé woon imposé imposé wu nànk-nànk ci la ma Bison ñëw gisee expliqué ma projet bi ne ma dañu bëgg pour bokk ci projet bi. après ñu dem euh, reptile def ñëw waxtaan ci tour bi après noonu la ñu décidé teg label bi man iso euh, bison tarmaïk ak idi donc noonu la demee quoi. label mi ngi mi ngi nekkoon caaro euh, yi ay temps jamono boobu noonu ngeen ko fondé woon boobu ñoom dib ñëwagun woon ñoom xekkil ak yeneen gars yi. waaw boobu boobu je pense on était cinq comme ni ma ko limee léegi rek boobu peut-être dib après la ñëw wax yeneen gars yi quoi. dib kan moo ko fa indi bokk nga ci ko fa indi wala. non non du tout du tout daf ñu fekk rek doon ñëw si studio bi doon enregistré comme ngay dem si benn studio di fay di enregistré après par la suite si la ko gars yi gisee pour mu liggéey quoi. Euh, ngeen jóge foofu ñëw Grand Yoff te pourtant yéen ñi ko fonde yëpp ay waa Caaroy ngeen tund boobu ngeen dëkkee dooral loolu. waaw xëy na à un moment donné peut-être dafa xawoon sori parce que. tour bi mi ngi doon commencé ñëw gars yi ñu ngi doon commencé xam reptile fale ñu nekk fenn fi nga xamante ni moo gën a accessible te peut-être côté Thiaroye bi dafa xaw a dafa xaw a xëcc par rapport ak yenn gars yi moo tax on a on a on a voulu se rapprocher un peu de la ville xam nga ñëw côté Grand Yoff cité Kayraba la njëkkoon nekk mooy côté CTO bi après ñëwaat fii HLM Grand Yoff parce que fii centre kii bi la quoi tu vois c'est accessible ak <laughs> Euh, ñu gis nga bokk ci membre fondateur wu Reptile Music mais dañ gis artistes yi fi mujjee ñëw ñoo la njëkk a génnee projet di si xaas lu mu euh, waaw man nag boo xoolee euh, Reptile maa fi njëkk a génnee projet. mixtape la woon bu tuddoon Yàgg Dream c'était en 2014. mais boobu boobu gars yi. waaw boobu ci xel kon. waaw boobu en fait ba muy génn dafa tombeek genre ma dem liggéeyi quoi. Hmm. parce que peut-être di nga jàng ba yeggal am see say diplôme après ci topp peut-être outil job quoi. léegi moment bi ma doon rab nag maa ngi doon jéem utaale job à côté yàlla def moment bi may génnee sama projet moment boobu noonu lañ ma proposé pour pour embaucher ma donc euh, après ba bañ ma embauché man maa ngi doon yaakaar naa mën a boole ñaari mais après je me suis rendu compte que ni c' était pas possible parce que temps amul woon donc mun naa ne projet bi dafa génn mais amuloon woon suivi bu ci war donte projet bu nice la woon amoon na featuring yu mag ay Papa Sagne ñu ngi si woon ay Super ñu ngi ci woon et cetera ay Bril Fight mais defuñ si promo bu ci waroon quoi donc loolu moo tax après peut dafa génn peut-être gars yi bëri sax xamuñ ni génne woon naa projet boobu par la suite si laa def benn absence bu 2014 ba 2016 fin 2016 presque 3 ans yi nga xamante ni daanaka rabuma quoi parce que aw ma woon benn temps pour rab donc voilà si laa jugee sama job après doog a ñëwaat si rab bi quoi. ñu toog ba benn temps ñu gis eh, ngeen def genre mun naa ko tuddee cartel wala dara wala label ñu gis ay ñoom Deep ñoom Wanderickal ñoom Hekil. ngeen nekkoon benn di job job bu nice ñu jeg jeg saa gis gars yi ci nekk di rocceeku benn par benn luy problème bi ba loolu di am tout le temps si label bi. waaw mooy li may wax tout le temps rek xam nga magum jëm moom bu nekkee ci benn bërëb dem ba gis ni peut-être foofu arrangé tu ko après xëy na moom mooy xam raison personnelle yi moom moo leen mën a wax lii ah lii ah lii la quoi kenn du ko tontu ci place am. donc man je respecte juste ah, man bu nekkoon man tamit suma ma demee ba sentir sama bopp ci biir label bi damay quitté parce que gars toog. jàpp sa ñaambur nga jéegi jéegi dégg ñu ne la kii sànni la pik fii kii sànni la pik fii donte lool ci game la bokk loolu bañuñ ko quoi xam mais nag euh, à un moment donné il faut nga régler compte yi quoi parce que doo toog rek gars yi di la piqué di la piqué di la donc loolu mais gars yi comme ni ñu wax rek sénégalais ku fayu lañ xam xamuñ ku tooñ mais souvent boo xool boo suivre action bu baax rek xam que ni peut-être bu diisi waxee benn affaire loolu am na fu mu jugee man du ma tëb tëb rek wax ak nit par exemple quoi day fekk nit kooku moom xam nga donc après c'est ça quoi. Euh, ñu toog de mil dix de deux vingt di xaa génnee euh, projet Outiko. waaw projet bi tur bi neem bi Outiko. waaw Outiko Outiko yaakaar naa dafa ëmb lépp quoi parce que lépp looy def ci life bi il faut il objectif. il faut nga am ay il faut nga am vision il faut nga li nga bëgg quoi te boo xoolee avant Outiko bi dama génne aatu feeñ na. aatu feeñ na mooy dafay symboliser ñëwaat bi quoi mooy aatu réeroon na léegi feeñ na te aatu feeñ na lim ci def mooy daf koy outil ji quoi parce que boo fixé say objectif nekk ci benn affaire bi ci yëngu il faut nga am loo xam ne yow loolu nga ci bëgg quoi loolu nga ci bëgg loolu nag il faut il faut nga te donner tous les moyens pour dem uti ci ko quoi loolu moo waral tur bi. yee parce que tur bi euh, dinaa ñëw si biir ci biir forme projet bi bu baax a baax mais tur bi dama gis gars yi bëri dañ la ciy classe ba si am <laughs> bi ñu lay classe quoi nee na bëgg lu yóbbu weesul génne projet tuddee ko uti ko bi nga toogee dégg loolu. waaw sans surprise ah parce que gars yi mooy li ma wax rek gars yi moom genre. mais li dan lay pour classe si day yomb quoi ko. mel ni kuy forcer nit ñi sa projet quoi yëpp comme yeneen <laughs> comme yeneen projet yëpp xam nga gars yi moom boo génnee sa turu projet bu ñu la bëggee clash moom. si tur bi la ñuy jaar quoi tu vois mën naa la joxe exemple mais du ko jaar. Mm-hmm. mais yaakaar naa ne ma dara def parce que je m'attendais à ça xamoon naa ni projet bu génnee nam ñu xam ne dañuy clash te ki ma clash sax kooku noonu xamoon naa ni dina clash parce que mooy li ma wax sànq rek gars yi ils sont prévisibles da nga xam ne ñii moo tax def ma dara man ba ba may ba son bi di génn sax dañ ma woo ne ma tel nit clash na la ba ma ko waxee genre ki ma ko ko wax moom mii seetaan xam nañ li may ma ko ma yàlla xam na ko tu vois parce que gars yi da xam quoi da lii lañ waaj wala ñi boo defee lii nañ def lii donc après voilà après loolu tamit euh, waa ji dafa amaat beneen classe bu ñëwaat ñu boole la si buy Karbala mhm. nga toog di dégg classe yooyu di dal sa kaw. waaw comme li ma wax liggéey liggéey la liggéey la et pour man sant ah, yàlla. yow la gars yi taamu ah biir reptile rek jamono bi <laughs> loolu euh, je pense sant yàlla déjà parce que euh, rappeurs yi bëri nañ ci ci Sénégal yaa ba may mujj dégg déggoon naa am na xaw ma 4000 rappeurs xaw ma affaire noonu tu donc 4000 rapports yooyu noonu bu ñu leen bàyyee ñoom ñëpp di la clash yow à chaque fois chaque fois da wan ni rek ni yaa ngi job xam nga bu nekkee jooboo gars yi duñ sax xam sa tur ba lay clash duñ la lijjanti kuy dem la ñuy jéem a clash quoi tu vois parce que gars yi mooy li ma wax rek buñ gisee benn affaire di dem il faut ñu jéem si àndaale àndaale boobu ngay def mooy da ngay jéem a pique pour mu wax ak yow pour après loolu def buzz genre noonu donc loolu pour man ce n'est rien ça ni ñi ngi liggéey xam nga te Euh, liggéey bi dafay doog a commencé rek dafay doog gars yi bu nekkee loolu rek mooy tax ñuy clash kon dinañ gën a clash quoi. waaw classe yi classe yi parce que boo gisee ma focus ci classe yi est-ce que classe bi amul lum la yàqal ci projet bi mm-hmm. ah, projet bi gars yi peut-être déglootuñ ko ñi ngi dem di déglu classe in classe di ci xaar ak sant bi nga mujjee génnee loolu tamit est-ce que bokkul ci luy luy yàq projet bi. non du tout du tout je pense que c'est le contraire ah parce que gars yi des fois nañ jàpp ne dañ lay yàqal alors que dañ la defal. am na ñu bëri ñi nga xamante ni peut-être après la ñu doog a déglu waat. da nga génnee projet bu daan yàggul dara gars yi classe nga dajalee ñoom ñëpp tontu leen ci benn sans après après projet bi. waaw après projet parce que boo xoolee The Goat bi génn fan yi la génn y a à deux mois si ginnaaw xaw ma un mois et quelque am na benn presque trois xaw ma quatre mois différence projet bi projet bi mai la génnoon. tu as projet bi démb la génn sax tellement que c'est d'actualité ba léegi tu vois. mais the goal bi il fallait def ko parce que il fallait ma raxas projet bi dama def benn projet bi nga xamante ni peut-être neex na gars yu bëri gars yi bëri validé nañ ko il fallait ma defaat beneen affaire pour pour def benn genre résumé benn genre compte rendu woo leen gars yi que ni def nañ lii fi lañ jógee def nañ lii ok léegi lii la fi lañ jëm. wala son boo ko dégluwaatee bu baax nga xam ne benn genre résumé sama carrière la mm. en même temps tontuwaale yenn gars yi nga xamante ni peut-être ñu mënoon clash depuis boobu te tontu ma leen. gars yi dañu yaakaaroon que ni mënuma clash wala genre que mënuma tontu bon nekkul dama ko def. genre pour loolu kese pour mm-hmm. tontu rek mais son bu mu programme woon def la bu yàgg la boo xoolee tontu yooyu noonu sa peut si deuxième couplet bi la mm-hmm. pour te dire rek ni programme woon naa son bu yàgg mais fallait que loolu noonu am ci tamit quoi euh, am na solo léegi dañuy dañuy ñëw si biir projet bi mu nekk projet bu nice uti ko ñu gis si ay featuring yu doy waar ku ci mel ni Elzo Jamdong mi ngi si biir ku ci mel ni Mao Sidibé Izo Dasmaya nag ñeneen ak ñeneen euh, xam nga featuring yi def gars yi ñooñu euh, ñoom ñëw filoon dafa ak yow featuring wala yaa leen contacté wala naturellement rek. waaw déjà maa leen di ñoom ñëpp di leen remercier ku si mel ni Elzo Mao Sidibé di dunu gis H de Best xam nga ñoom ñëpp ils ont très. bu bëri ay featuring ah? projet bu bari featuring la boo xoolee cinq yëpp je pense ay featuring la yeneen cinq yi man kese la ñoom ñëpp maa leen di remercier ku si nekk ba mu la waxee projet bi tu as été très disponible très ouvert xam nga man maa leen filoon nag par contre man maa leen fil. Euh, ku si mel ni âge son boobu defoon naa ko xaw na yàgg tuuti premier couplet rek laa defoon ainsi de suite si laa ne noonu li âge bu jëlee refrain bi dina nice ma yónnee ko suba laa ko yónnee ngoon mu jox ma refrain bi donc euh, Mao Sidibé pareil moom tamit euh, il a été très réceptif Elzo moom sama waaye la xam nga mi woon France sax mais il affaire bi xam nga parce que temps noonu dañ leen confiné wul mais fexe na ba lijjanti maayek affaire yooyu noonu gaaleem pour mun ko enregistré dib du mu gis aussi pareil c'est la famille quoi donc ñoom ñëpp maa leen di Euh, léegi projet bi ñu am fu ñu jëm. projet bi bokk ci projet yi compétir ci Galsen Hip Hop Awards yi euh, meilleur featuring sax est-ce que bokkoo ci tamit. bokk nga ci catégorie yu bëri ah. waaw bokkoon naa si ñaari ñaari son Ami Ndiaye bi. ak euh, loolu kese bi ñaari yëpp ñu woon si catégorie maire featuring. donc instant yaakaar naa loolu kese bi rek moo fa des. parce que gars yi nañ beneen beneen tri. yaakaar naa instant loolu kese rek moo fa des sinon mais man loolu kese bi loolu kese bi est ce que loolu kese bi est ce que du diba ko yóbbaale rek mais Ami eh, Ndiaye bi bàyyi waaw man man personnellement mooy li may wax rek personnellement man Ami Ndiaye bi daaxal mais xam nga tamit je pense que nii euh, gars moom doo xam critères yi ñuy jugé et man du loolu peut être du si mën a sori yenn sori mais pour man ñaar yëpp naes nañ naes donte ku nekk di am sa choix personnel am ñoo xam ne peut être loolu kese am ñoo xam ne Amy Ndiaye moo leen di gënal mais donte ñu bëri nee nañ Amy Ndiaye moo dàq tu vois mais ça fait rien quoi pour man lépp benn la xam nga. boo loxoortee Souleymane Faye. Souleymane Faye <laughs> waaw loolu mooy. question bi bu indiwaatee quoi ah, boole bi mu indiwaat beneen xar kanam bu doy waar. Ah, waaw non pas pas bu pas bu nice la pas bu cool la. et ñu bëri ñu ngi may laaj loolu foofu fekk noo def ba jël paa parce que paa dafa jafe. mais voilà ñun moom bañ ko contacter jox ko son bi daf ko déglu apprécier ko mm-hmm. donte après xëy na disponibilité am permettre ko woon. xaw na yéexal affaire yi tuuti parce que boo xoolee vidéo waroon na génn bu yàgg tourné woon nañ lépp paa rek moo desoon après muy reporté di reporté parce que il était pris temps yooyu noonu ba benn moment nag mu mu mu libre après si la ñu woo ñu ñëw tourné ko vite fait après voilà c' est pas bu nice la pas bu bu baax la quoi maa koy nuyu bu baax di ko remercier moom nga def ak Izo Dasmayen moom laa def ak Izo waaw mm-hmm. Izo mi ngi fi mi waayal projet mi waayal projet. yaa ngi génnee <laughs> waaw waaw gis nga mais moom mi ngi si mi ngi si album moom mi ngi job projet am. am na am na ay son yu ñu def sax man ak moom. donc mi mi ngi waajal affaire yu garaaw. instant bi suite logique gu projet bi instant lan lan mën a xaar. waaw instant yi nag yi xaar sama sama concert bi may waaj a def. xam naa balaa semaine bi di jeex incha allah nañ ko annoncé. bon salle bu mag lañ bëggoon jël. mais xam nga ak Covid bi gars yi autorisé gu ñenn salle yu mag yi. te mënoo toog tam di xaar ñu autorisé ko parce que temps mii dem te foog nga def promo tuuti mais ñiy xool ñiy xool possibilité yu ñu am xam naa fii léegi fin semaine dinañ wax lu leer gars yi incha allah mm-hmm. bu ko defee après à loolu maa sama album tamit am na yeneen featuring yu bëri ma job entre temps def naa ay collaboration ay artistes yu mm-hmm. xam ne denc def nañ ko denc ko ñuy waayal sama album tamit ñu ngi koy waayal te dina génn si 2021 bi incha allah. retour yi nga am si projet bi yenn grand yi. waaw grand yi waaw grand yi maa leen bu baax xam nga Euh, bëgguma lim tur mais euh, gars yu bëri dañ mooy dañ may woo yi di ma message ay grand ñoo xam ne je respecte booku beaucoup di la message di apprécier projet bi xam nga vraiment di la jox ay conseil xam naa laan clibal bi bii mooy it bi nangam nangam donc euh, côté boobu moom macha allah quoi am naa ci gagné naa ci respect bu baax côté côté côté old school yi côté grand yi quoi. man moom yenn grand yi may waxtaanal yëpp nee nañ Dizzy Kha dafa màgg léegi moom dafa gën a mën rap par rapport ak Dizzy Kha waaw waaw waaw merci ah merci xam affaire moom je pense que nii mooy li may wax rek euh, soñaat la rek soññ la dalay dalay permettre nga gën a liggéey gën a xamaat ni attente bi dafay gën a rëy et puis yaakaar naa ni processus bu ñu commencé woon bu yàgg la xëy na mooy mooy commencé feeñ nii. est nekkul son fu leer laa ko teg bi est que amul lu may di si xaar couple bi nga fa teg tamit. waaw du ñàkk du ñàkk bëri tamit si lan la gën a bàyyi waatee xel. waaw du ñàkk du ñàkk parce que xëy na gars bëri mooy li may wax dañ ma doon dañu xamul woon lan laa mën def mm-hmm. pour ñoom peut-être. j'étais pas capable de faire certaines choses par rapport ak rap demoon na ma yàgg rap xam naa rap bu baax yàgg naa foo ci rap xam nga xëy na peut-être dafa am yenn facettes yoo xam ne gars yi dañ koy doog a découvrir ko waxee Dip c'est c'est le c'est maanaam moom son def ci performance bu toll noonu après forcément da lay may benn visibilité bi nga xamante ni voilà. mais Dizikha nekk rappeur nekk Reptyle bokk ak Dip même benn label nga taxaw ne Dip c'est le meilleur le number one. sa fan si lay déglu. du ñu mer du ñu mer si kàddu non du ñu du ñu mer xam nga lu tax parce que man man man man je suis le meilleur xam nga genre su ma nee Dip c'est le meilleur ça veut pas dire que Dip genre dama dama dama tuutal sama bopp par rapport ak moom su ma nee c'est le meilleur mooy booy xool côté succès. c'est le i ici munoo jël kenn nga teg ko ci kaw diib loolu c'est c'est la réalité boo ko defee rek da nga dof quoi mm-hmm. donc lu ne lu gay lu ne fàng kenn ko ku ci nekk nag personnellement yow mun nga jàpp sa bopp ni yow yaa fi dàq rab loo gëm lay nekk ba pare looy wane lay nekk quoi mais quand je dis le meilleur c'est parce que mooy le numéro un quoi mm-hmm. instant yi munoo lim benn rappeur sénégalais boo xam koy teg ci kaw diib et loolu c'est mais mais Dizzy gis nañ tamit nga nekk reptile yor sa sa sa jiw bopp sa labelu bopp ñaari job yooyu ñaari label yooyu. waaw euh, loo si mën loo si mën musique maa ngi ko teg en deux mille dix neuf sama studio studio la nekk njëkkoon nekk nekk woon label boo xoolee outil ko yëpp foofu laa ko enregistré parce que fale moom sama espace xam nga nekk sama monde quoi nga xam ne si laay gën a mën a productif si laay gën a mën a jël sama temps ci yenn yi donc au début c'était même pas un projet de label. mais ba ñu dem di dem di dem ba ci biir si la ñu gis yenn booy di ñëw studio bi di enregistré gis yenn talent yi foofu ainsi de suite après ñu ne pourquoi pas ñu commencé jël ay booy génnee leen parce que loolu tam bokkoon na samay objectif man bu may commencé rap donc euh, après si laa signé benn benn booy bu ñu naan Estefas dëkk Sam Sam muy booy bu talentueux je pense que gars yi ñu koy commencé gis donc euh, après ñi ngi amaat projet signé waat yeneen booy mais nank-nank parce que dañu bëgg a toppatoo artiste bi ñu signé nii ba nga xamante ni dina am benn carrière bu normal ñu doog a jublu ci keneen quoi. ay kuy mënuñu bokk mbalka ñu gis reptile ay kuy rek a fi nekk quoi ku ci mel ni BMJ di si xaar Samba Dip Kérés yi gars yi yëpp wax yéen fi mën a joobee yéen ñooñ noonu xëccoo bi dina metti fii seen biir de mais looloo tax ñu sonal gars yi parce que xam nga rëbb dafa nekk level bu grave quoi dafa nekk level boo xam ne élément benn élément boo si jël rek kooku rek doy na pour mu imposer bu baax quoi tu mm-hmm. vois te ku si nekk yaa ngi sa carrière comme il se doit boo jëlee sàmm ji nga sàmm nu mel léegi tu vois ah, allah Dip moom waxatuñ ay waxam BMJ pareil xam nga donc koo si jël ku ci nekk Doboy ku ci nekk rek moom rek mën na la defaral mën na la tegal carrière bu carré quoi. Mm-hmm. xam te loolu je pense que ñooñu ñëpp bu ñu ñëwee bokk benn level après ñooñu kenn ñenn du leen téye quoi. Mm-hmm. je pense que loolu moo c'est ça qui fait notre force et puis voilà ça va pas s'arrêter incha je pense. mais nag gars yi da ngeen lu tax du ngeen xëccaat yeneen booy indi leen roof leen ci biir mais yéen ñii rek boobu ba léegi. pourtant pourtant dañ temps yi benn benn benn waykat xam nga et puis am nañ yeneen en vue aussi ñun bañuñ loolu quoi bañuñu peut-être koo xamante ni gis na parce que nekkul tamit ñëpp ñoo bëgg nekk ci label am ñoo xam ne peut-être dañuy préférer évoluer en solo mais bañuñu euh, par exemple gis benn artiste liggéey ak moom quoi loolu je pense que peut-être ñoom Idi wala genre ñoom ci gën a ñoom ci gën a wax sax ñun artistes yi peut-être suñu carrière rek lañ mën a gérer en tout cas ñun moom xaral luñ génn boo gisee am na artistes yoo xamante ni sax ñii dañu yaakaar ne fépp ci lañ bokk xam nga parce que tellement on a de bonnes relations avec eux donc voilà quoi yeah. ye disi xaa instant bi nii émission bi jeex na daanaka léegi si lu ñuy ñëw mooy yaa ngi waajal benn événement mais fii ak temps yi la ñuy xam fan nga koy tëggee ak date beeg yooyu waaw fii léegi xam naa fii léegi maximum une semaine dinañ joxe affiche bi joxe date bi ak information yëpp hmm. sera un événement boo xam ne c'est c'est c'est ko show hmm. xam nga événement bu neex lay nekk na ko gaa yi waajal fin décembre normalement incha allah si tout se passe bien invité naa la ci invité équipe bi yëpp xam nga donc euh, wax gars yi nañ pare ñëpp a ngi may laaj nag naan maan affaire bi kañ la kañ la mais xam nga bu ñu yaa xam di fi léegi une semaine nañu yëpp incha allah ñu ngi lay béggee bu baax a baax di ci xaar di la pay bu baax a baax wala respect ci moom ñu ngi koy béggee bu baax a baax di ci xaar tey dañ ñëwoon reptile fekk ko euh, fekk fi di ci xaar waxtaan ak moom euh, ci projet bi mu génnee muy wuti ko mu nekk projet bu naa naaj daw leen yuti xooli ko respect ci moom di leen jox rendez-vous beneen yoon Equivox TV Galsen sama game jili der di béggee sama maan bi Modou Foulé ma meen El Hadj maa ngi leen di béggee bu baax a baax et deuxième monsieur Seck bégg na lu wér jaajëf respect sama gars yi